al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak li téye li lislaam salaamaaleykum sëñ xabaar maa leen ñu baax di la ziar ñaan yàlla def jàmm ci njaboot yëpp mbokk bi mi ngi doon laaj mu ne koo xam ne biiram dafay faral di jooy xam ne daal day jooy ba dépassé da ci am kersa waaw loolu de bari ñu muy jaaxal loolu la ñaar li fi indi mooy seere moo ci jiitu bu fekkee li muy naan ci ndox doyut di faral di seere ngelaw li su baree ci biir bi day waral butit gi fokk dana faral di lemu léeg-léeg ci engrais yi lemu bi muy lemu nag bu fa bu fa dugub ji di jaar ànd ak air day mel luy peer def bruit loolu nag ñaari loolu seere moo koy def kon nag lépp luy indi seere rek muy ñam jóge ci farine benn mburoog beñeeg spaghetti yooyu soo ko mënta bàyyi tam nag wàññi lu mu mën waaye ci gën a am solo mooy nay naan ndox bu bari pour que bëtitam di tooy comme ça du seere te incha allah bu du seere euh, loolu dana wàññeeku baax a baax lekk yi nga xam ne dafa am ngelaw itam mu moytu ko tuuti ndax am na lekk yoo ngelaw fariñ ci la bokk waaye aussi lu mel ne ci la bokk ak euh, lu mel ne supame waaw xeet lekk yooyu dafa bari ngelaw baax jërëjëf salaamaaleykum suñu xaban maa ngi nuyu bu baax waaw mbokk mi laaj ne sa genn wàll toog ci kër ci naaj dafa ndax loolu baaxul ci wér-gu-yaram ak li ne noonu ah, daal wax dama jàpp ne mbokk mi dana diis rek diis tuuti dugg ci dugg ci kër gi wala bu soxlaa naaj bi tam mën a dugg ci naaj bi rek <laughs> yaakaar naa mu gën a loolu moom mun cee xam daal wax du tontu bu leer ci wàllu mystique ndax lu ko war a jar jar daal moom laa xamul ndax naaj moom ku toog fekk genn waa nekk ci kër genn waa nekk ci naaj yaakaar naa boo fa nee yàgg tuuti rek ah naajo fekk si la fa wala kër ga dem bàyyi la baax na jërëjëf salaamaaleykum sëñ Xaban maa ngi nuyu bu baax waaw mbokk mi day laaj mu ne téléphone bi ñaari écran bu bu ko bu ko tiimee lu mel ne fi dëndam nekk tolloo xol bi da am lu muy yëg ci xol bi daxal waaw loolu de moom ñi defar téléphone yi ah, wax nañ ne téléphone bu nekk dafa am ay ondes magnétiques xam nga téléphone léegi moom dañ cee boole lu bari télé ngi ci biir rajo ngi ci biir euh, caméra vidéo ngi ci euh, appareil photo ngi ci lépp ngi ci micro ak baafal yooyu yëpp nag dafay am ay ondes yu ñu àndal léegi nag ñu di ko mesurer ci li ñuy wax DAS débit d'absorption spécifique anglais di ko wax euh, kii SAR waaw léegi nag boobu dañ koy natt natt gi ñu koy natt tax na ñu ne téléphone même sooy wuyu téléphone sax diggante téléphone bi ak su nopp baaraam war na ci xaj ndax boo ko collecté sa noppi sax da ngay gën yokk rayon yooyu onde yooyu ci sa biir yuur te loolu gënul tax na itam képp ku defar téléphone day natt daasam boobu nu mu toll mu am ay normes international yoo xam ne naan lii war ko téléphone war ko war ko dépassé ba tax na am na réew yoo xam ne nii bu daas téléphone bi bu daas bi dépassé dépassé loolu dañuy interdit ñu jaay ko ci réew ma am na téléphone yi jaay suñu réew mi Sénégal yoo xam ne doo ko fekk mukk Europe ndax jaay suñu moo bari am na norme américaine am na norme européenne am na norme euh, internationale loolu nag ku jënd téléphone original boo xoolee notice bu baax da ci gis suñu bind SAR wala DAS wax na ñaata la te boo duggee ci internet boo xoolee da xam téléphone yi gën a néew DAS ak yi gën a bari le bu la gën a néew DAS moo gën ci wér-gu-yaram bu ko gën a bari le moo ci defoon naa ci émission mi ngi ci youtube bi xam naa danaa leen ko wan ku ci tàppee itam danger yi nekk ci téléphone portable danga gis waxtaan bi ci defoon waaye dinaa leen dinaa dugal lien bi jërëjëf. ci loolu sax tax na ñoom ñu recommandé woon ñu ne euh, téléphone portable jigéen ñi warul war waru ko jege rawatina li tàmbalee jumba xam ba ci woomam xale bu ndaw itam waru ko jege li tàmbalee xale bu ndaw sax daanaka waru ko jege ak lii rek xale yu ndaw léegi nag li gis mooy suñ téléphone la ñuy fooyee di ko yor temps boo xam ne mag ñi sax muñ mu muñu ko yor loolu yëpp wóorul baaxul ci xelam xale bi baaxul ci bopp bi baaxul ci wér-gu-yaram waaye ñun ñëpp nañ ci jàpp tàmbale ci man mii di wax ak yéen ku ci nekk sa doom am nga ci jafe-jafe boobu waaw ñi li ci gën mooy bu mu jege sa awra li ci gën bu mu jege sa xol doon téléphone booy téléphone itam waxtu bi ñu lay woo waxtu bi ngay wootee da ngay bàyyi na jëlu teg sa nopp composé bàyyi ba mu sarse ba nekki ne alu boo xoolee écran bi gis chiffre yi commencé dox nga doog a wuyu nga doog a teg sa nopp doog a doog a nuyoo ndax waxtu nga xam ci lay sarse day bari ay ondes lool loolu tam gis ko ci ku ko mën tam nga jëfandikoo casque def ko haut-parleur bi da ngaa wét mooy moo ci gën ngir wàññandiku daal danger ci nekk jërëjëf salaamaaleykum lu tàng ak lu sedd ci saa si ci seen saa ndax loolu euh, baax na ci wér wala baaxul loolu moom gënul nag dëgg yàlla ndax xawitam maanaam ku ko xool ci quartier wala kaas lu tàng boo jékki-jékki sotti ci lu sedd wala lu sedd nga jékki-jékki sotti ci lu tàng différence de température boobu mën naa am lu mu indi ci jafe-jafe ndax ni ma ko waxtaanee woon lu sedd day kabbuloo lu tàng day tawi kon ñaar boo leen bëggee tegale mën naa indi jafe-jafe kon li gën mooy nit ki su fekkee dafa naan kase ba noppi muy lu tàng su ndox ndox mi bu mu ëpp mën na góox lu yem jàllale ko ndànk pour que putam lu sedd li ndànk ndànk muy naan bu baax bu njëkkee lu sedd itam noonu waaw moo ci tamit dal waaye rek naan sedd ci saa teg lu tàng wala naan lu tàng sedd moom lu taxu ko baax noonu xëy na amul loolu métti waaye taxu ko baax salaamaaleykum sa ci wàllu lekk lu mel ne ndawal wala jën noppi teg ci lu mel ne soow yooyu ñu ne baaxut ah loolu de wax dëgg yàlla man day xamu ci lu muy wàññi xamuñu ko ci wàllu nag meew ak darkase itam dégg naa nañ ñu koy wax xaw ma nag ba xam dëgg-dëgg doom bi saal bi la wala ñam yi loolu moom des na ca ma xam waaye jàndam gën koo gëstuwaat ci ñiy liggéey ci wàllu euh, wàllu wàllu lu jëm ci mbirum lekk daal loolu dëgg lu suñu bu baax a baax waaye yeneen ci des moom moom gis ñu ci benn wàññi benn wàññant jërëjëf